asalaamaaleykum président Gana. maaleykum salaam Singo. waaw mais gëjoon nañ la gis na mën nañ la trop ci lan nga nekkoon d' abord. war xam ne président ci li mu nekk rek ci liggéey bi mais dañu ñëw tey ci stade bi gis nga nekk ci macha allah temps fort gis ay dernier réglage ay tribune ay finalisation ay caax signé travaux la pourquoi. xam nga rek comme bu yàggul rek doon nañu wax ni dañoo bëgg bu yàggul dara ñu jox xale yi pelouse bi comme ça ñu mën a dérouler seen nawetaan comme ni ko waxante woon kon loolu digga la te digga bor la moo waral tey jii nekk tey ci finalisation par rapport ak xam ne moo tax ñu ngi ci finition yi pour mën leen jox. Euh, xulu bi subaa ñu déroulé seen commencé mën a commencé seen man maanaam le 23 septembre samedi suba mooy première journée de compétition bi incha allah. waaw suba le 23 incha allah rabi bi ñu commencé. waaw mais léegi yow lan ngay ban appel ngay lancé comme bijou bi nga créel euh, euh, banlieue bi créel ko waa zone bii nii ban appel ngay lancé. waaw d'abord njëkk a lancé population. Wassare Tivaouane Peulh Rufisque li laajte rek mooy violence violence bi surtout mu teg ko ci suuf li ñu njëkk lancé mooy fair play bi li ñu njëkk lancé mooy bon football euh, kaf ak ree la li ñuy lancé mooy euh, acteurs yëpp ku ko mën soo mënee jàppale sa population nga jàppale parce que xam naa ni

soo xam naa ni Kër Massar yëpp ñu ngi koy xaar. mu toxee casquette politique bi nag ah ñu ngi ne dañuy woote waa faj njëbitu askan yëpp ak woo département wu Kër Massar woo département wu Rufisque woo Sénégal yëpp bon ci ci bis boobu xam naa dootul yàgg nag dootul yàgg dootul yàgg dara parce que bon comme pexe amul xale yi bëgg nañu ñu ngi exiger à ce que ñu jox leen terrain bi ñu football ñun xam nga ñoom ñoom ñoo tax ñu def ko kon dañ daal leen fekk si par rapport ak li ñu bëgg au moins ñu mën a déroulé parce que ñoom ñoo ñu bëgg a waaw mais kon ñu joxante dox daje rek fan yii rek. dootul yàgg incha allah Singo te am na waxkat bu mag boo xam ne ba tey moom mu koy fàttali. te bu soobee yàlla. loolu mm. dina am bu neexee yàlla. mun nañ tudd turam wala. bu la neexee bu la neexee. mooy gone gi rek gone gu saay saay. waaw gars yi ngi xaar Waly looy wax ci Waly Seck. non kooku mënut a ñàkk parce bor la te xam nga ne moom bu soobee yàlla lépp lu rek. baax nag am mbégte mu rëy rëy fekk bi nga ma fekk fii nga xam ne bon ñun li lañ gëm ci loolu lañ nekk mooy fi may liggéey muy rawatina stade bi ñu réalisé pour mun nañu wax monde bal kon dañ ci kontaan bu baax nga fekk ma fi ma ngi ànd ak